Bienvenue sur Salam Vision. maa nga jëm Parcelles Assainies unité 21 en face terrain basket bi dem seeti yi Ahmadou Bassirou njaay Ngéraan borom bi may ko lool ci xam-xam xam-xam boobu nag mu ci dimbali nit ñi mu daal di leen defaral ñetti ubbeeku yoo xam ni da nga koy sangoo maanaam mu di ay saabu yoo xam ni am na ñetti niveau boo xam ni saabu bu njëkk bi day def ci yow ubbeeku ba noppi def ci yow protection ndax yéen ñëpp soxla ngeen protection ñaareel bi dafa lay ubbi ba noppi indi la ñetteel bi nag mooy niveau a kawe waaye ñetteelu saabu bi ubbeeku bu leer nañ ba noppi nag àndandoog li nga xam ni liy dugg sa loxo day des ci sa loxo di toog ci sa loxo kon Ahmadou Bassirou Ndiaye li la yàlla may jërëjëf ci ni nga ko bokkeeg jaam yi rawatina nag ñi nga xam ni dañoo am problème mu njaboot nga xam ni nag ay góor lañu am nañu kàttan waaye mënuñu am doom mu dimbali leen ndax léeg-léeg góor ak jigéen dinañu nekk ci sëy duñu am doom ñu ne rek ku jigéen ki la fekk yow ku góor ki it daa war a faju kon ñëw leen seet si Ahmadou Bassirou Ndiaye mu jaarale leen ci produit boobu muy wax Nasirullah Nasirullah nag dinañ la traité bu baax yow ku góor ki nga xam ni koo jege rek di nga ca mën a am njaboot Ahmadou Bassirou Ndiaye Ngirane Parcelles Assainies unité 21 janoo ak terrain basket bi téléphone 76 589 93 67 wala 78 469 24 30. Bienvenue